xibaar yi wér te ci leeral SN aboneel naaw buñ ko jàppee ci ay fan yu kii nii di Babacar Touré yoru chaîne YouTube bi ak site net bi nii di Kéwoulo moom nag biñ ko jàppee ci ay wax yoo xamante ne si ne nag waxoon na ko ci leen ko yóbbuwoon fi nga xamante ne si ne nag moom moo di ci ndungu sin moom daal danoo génn rek xamle ne moom daal dañ ko évacuer fële nga xam si nag moo di ci hôpital principal ndax dafa jagadi jagadi ko doy waar tamit ki nii di Babacar Touré nag ñu jàpp ko nag ci wax joo xam si nag waxoon na ko eh, ci Frédéric Napel moom daal eh, yóbbu ko hôpital gin ko def nag moom instant bi daal ñu ci bare bare bare nag dañ ci tiit torop ndax eh, ginnaaw ci ay fan yi néew ñu jàpp ki nii di Babacar Touré dara jotu ko woon dem donc seen rek mu commencé feebar feebar bu doy waar daal gaa yëpp nag commencé nañ ci tiite abonné leen like vidéo yi xibaar yi wér te woo fii ci leeral SN aboneel te cliquer ci cloche de notification yi xaar suñuy vidéo jërëjëf